témoignage bi ma ci bi ma ci njëkk def de li li tax ma ne mooy sunu kilifa bi nga xamee ne ñi ngi jàng fii Kër Sëñ bu di jàng alxuraanu karim fii ci daara ji sëñ Xaadim di fi waaju jógee maag sëñ Moussaïn sama rakk ak suñ Cheikh Ahmad Lay dañoo jël fii yóbbuñu ne dama leen yóbbu fa seen mag nekk muy sëñ Bas yaakaar naa fan yi gis ngeen photo bi nga xam ne génnoon na ci sëñ Massaxir Lo ak sëñ Xaadim aw ba yaakaar naa àdduna bépp jot nañ ci gis nañ ko photo boobu moom moo nekk ci ginnaaw mu jëluñu fii yóbbu ñu ne danaa leen yóbbu ci seen mag fa mu nekk ma teg leen ci seen loxo ngeen mottali seen alquran karim image boobu duma ko fàtte mukk keroog ay waxtu timis dañ fa àgg euh, keroog sëñ Xaadim woo ko ak sëñ Maxtaar Lo mu jël sunuy loxo teg ko teg ko ci moom ko seen say rakka ngi noonu euh, gunge leen nga nga teetal leen jàng leen alquran karim loolu kon euh, gannaaw bañ bokkee lépp loolu suñu waajur sëñ Xaadim ba defoon ñu nekk foofu ji daara ja tut at sëñ bi daal di làqu ci 91 loolu nag euh, muy dénkaaneb alquranu karim loolu mën naa wax ne ba fii ñu nekk euh, doxalin woowu wala dénkaane boobu moom la teg suñ kaw ñun ñëpp ci biir njaboot gépp ndax du wax ne du ma wax ne xëy na li bokk lépp a tax waaye képp koo xam ne bokk nag moom suñ xaadim woowu fii euh, ci mbokk yi mi ngi jëflante yow jëflante bi rawatina sëñ Saaliw nag la ko njëkkee suñ xalifa bi nga xam ne moom mooy léppam sëñ Saaliw mooy waajuram mooy lépp waaye sëñ Bas mooy Baay Faal mooy waaye la ko dal sëñ Saliou ba ci tiad mi gën a tudd mu ñoom sëñ Seexuna amul kenn ko xam ne wala jëfam àggut ci yow bi tukki jotee nga xam ne tukki jot na nit ñi soxla ay passeport loolu yàgg na avant Macky Sall yi toog sax ñu bari moo leen lijjantil man mi 2004 la am sama passeport diplomate ñëpp am ko ñu ñëpp mi ngi jaar ci loxol sëñ Bachirou Mbacké mi man nag sama diggante moom euh, muy sama kilifa ñoo bokk ndey ak baay ñu bokk lépp euh, lii ma man tey te alaaj jaaj doon ko wax léegi muy jug ba Euh, mën a taxaw ba taxawal AIS ñu ànd ci liggéey ak sama mbokk yu tedd yii mën naa wax ne xalaat bi ak fit wi ak xel meeg lépp ci moom laa ko jëlee ci moom laa ko jëlee ndax it avant may taxaw li yaakaar na ñëpp xam nañ suñu bas ay euh, mën naa wax ne euh, quatre-vingt-dix-huit wala ba deux mille journée sëñ Bara yi nga xam ne mi ngi ko doon taxawal nga xam ne boobu journée kenn xalaatut wala ñemee taxaw ne déjà journée kii danaa ko taxawal pour yóbbu ko CCS wala yóbbu ko feneen loolu bokk na ci li nga xam ne gën nañoo inspiré loo biñ demee ba nga xam ne yàlla euh, sànni nañu xel pour ñu war a taxaw ñu am fitu fu ñu mën a taxaw ci roy ci ay tànkam ba yàlla dimbali ñu ñun tamit ñu mën a fedeere ba mën a taxaw ngir taxawal li nga xam mooy AIS pour mën a taxawal tasawuf bañ koy taxawal tamit tàggu naa ko waxtaan naa jëm mu jox ma ci ndigal di ma teet di ma jàppale alalam ñu ko njëkk def ci la bokk kon loolu bu amee wax dëgg yàlla war naa ko def témoignage ba ñëpp xam ne euh, li may dox nii ba yàlla di ma jëfa sutura dafa am fu mu wéeru te fi mu wéeru du kenn ku dul moom mi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay muy Cheikh Sëñ Bassirou Mbacké Khadim Awa te euh, moom nag mu nekk nit ku tabe nit ku généreux koo xam damay wax nitam euh, dafa mën nitam te loolu ci yentu sens yentu sens noonu la meloon yentu sens dafa mën nitam Sëriñ Tuubaa dafa mat nitam Cheikh Moulayine Baara mi fi nekkoon dafa mat nitam ku weddi nga laaj laaj jaaje mi tobbeeg fépp nga laaj leen yaakaar naa tobbee ngi daana wax ne ñoom fu ñu xas ba teg seen loxo dañuy teg seen loxo ne fii sama yëf la suñ suñ bas loolu dond ci Cheikh Moulayine Baara maamam maanaam nitam ak yëfam loolu yaakaar naa Sénégal yëpp xam nañ ko bu ñu xamee ni mel ñoom nag nañ xam ne da koo donn ci Cheikh Mame Lamine Bara ndax Cheikh Lamine Bara Kajoor fu mas a nekk rek danaan yi sama yëf sama yëfa la daan wax yëfam nag daawul nangu kenn ku ko laal kon loolu la doon ci maamam di nekk nit koo xam ne mën naa sonn ci doomu adama lool waaye sonn gi muy sonn ci ñun la ko njëkke ci ay waajuram la ko njëkkee ci ay euh, rakkam la ko njëkkee ndax fii ñu nekk fi juguy mi ni moo ko tabax ba mu àgg mooy R plus 1 bu mag ci saal def ci lépp ba mu àgg yëkkati caabi jox ma ne ma dëkkal moo ko mobile moo ko def lépp maa ngi koy wax AES léegi ñëw nañ fa dugg nañ fa gis nañ mobile gis nañ lépp loolu nag wax dëgg yàlla bu amee dañ ko war a seere ba ñëpp xam ne ku mën a defal lu baax ci biti rek ci ay mbokkum la ko njëkk ci ay ko njëkk loolu nag ala kulli haal faw ñu seere ko ba bépp xam ko xam ne nit ku baax la nit ku généreux ku am yërmaane la nag waaye ku am fulla nag la ku am ci boppam la ndax yontu salance daraan boole ñaar lewet ga ak baax ga ak laabir ga lépp teewut nag boo bëggee salfaañe nag mu mu yemloo sa place Sering bas lor lor lor rek mo nek ci mom sant bu baax it sëriñ Mbacke moom ci wat ak serigne maam Cheikh waaye di sant di geureum serigne Ahmed Khalifa Niass mum sama baay arabi Niass ma bok ak mom barki demb rek ñaari jotaay ben bi euh, sunu sunu wajur aladji Iyaan tiam bind livre ñu jël ma comme conférencier ma ak mom ci Grand Théâtre mu bindat ben livre barki demb ñu di ko présenté ci Radisson ñu ni professeur Lamane Mbaye moo koy defaat sam papa arab yi discours ba mu fa def ba nëgë ni ñu ngi koy waxtaanee ma lay sant bu baax a baax sëriñ Babacar Cissé maa ngi lay sant bu baax xëy na gisante bi la waaye xamante nañ baax ndax docteur Jim Dramé thèse bi mu def ci jaamal maa ko corrigé ma bokk moom lu bari ñu bokkoon école normale supérieure muy sama xarit kon defe naa xamante nañ bu baax a baax euh, dellu siwaat nag ci sëriñ Basirou ci bis bu tedd bii nga xam ni ci la Al Moustapha bàyyi ko won Sénégal 1895 21 septembre di dem euh, mu doon bis bo xamni euh ñu bari dañuy feete lo xam dañ ko réussir waye étape épreuve kuy dem ni man dama bëgg. Njaay ma nga ca Kébémer bari na yo xamni man mi lay Wo wo magan Ndiaye wut teranga mu diw nak ku ci am ku wàññi ku mu yobul ma faw nak ku ci amum tudd mu ni ma fam tudd ku ci am xew mu dajalé yóbbu fa la fa wara dem. bu gàmmu amee Chérif Papa dara seede na ñeneen seede nañu Kébémer bu gàmmu amee it ay nagam dem kon li ma la rek nit njariñ lañ koy toppe njariñ li am solo moom la ñu toppe Serigne Touba. di nuyu sama mbokk yu baax yi muy Serigne Ahmed Khalifa Niass jóge ca kër maam Abdoulahi Niass di ca këru ci ëttub maam Khalifa. di di di di di rafetlu kàddu yi ak taxawaay bi ci rafet gum rafet ak yaru gum yaru ak tege ci teggin ndax dañuy wax ni dañuy wax ni dañuy wax ni dañuy wax ni xam-xam lu mu bari bari bu ca bu ko teggin laxasul amul njariñ te seen kaddu boko ko mom ak Serigne Babacar Cissé da nga xamni kaddu yu tege ci xam-xam la waaye kaddu yu am tegin la ndax dañu wax ilmun bila adabin ka shajaratin bila samarin ba taxna na may rafetlu seen jotaay ci seenu mbax ak and go xam nañ ko and ak sama rak ji nga xamni moy man may mom jenn jëm lañ du ñaari jëm ma gis taxaway bi ngeen am ci mom ak jappale gi ngeen ko jappale te ci bir kaddu sëñ Abdourahmane wax na ko léegi nee na bari waa na ñoo xam dañuy ànd ak nit jiital ko pare di ko fakkasal te yéen fa tabaarakallaahu seen ànd ànd bu bu bu dëgg la bu dëggu la ndax te yàlla rek lal ko ak bëgg lu baax ak yéenante lu baax maa kaana lillaahi daama war tasal wa maa kaana li xayrillaahi in xataa woon fasal ànd bu yàlla taxee kanam la jëm waaye bu yàlla taxul lu mu yàgg-yàgg du dem fenn te seen nekk ak seen ànd yàlla dong la ak mbokk ak maam yu baax yi nga xam ni ñoo jëmbatoon mbooreem kóllëre gu dox suñu diggante ak yéen ca maam la woon ba tax na bi yi dox ba mu taxawal lii ànd ko ak yéen ngeen jàppale ko ci mm, sëñ Ahmed Khalifa wax ne ko léegi nee na dañ doon def rotation par un an wala deux ans wala trois ans wala quatre ans wala cinq ans kenn di ay waaye ñoom ñoo fab yooyu yëpp fab ko jox ko ko barki dem dafa feebar ay 3 heures du matin ma yóbbu ko hôpital bi ma ñëwee man kon da ngaa war a nopp noppalu ndax ritm bii ngay doxe metti na bu tey yaa nga Tamba bu tey yaa nga Kébémer bu tey yaa nga Louga bu tey yaa nga Saint-Louis bu tey yaa nga Kaolack loolu rythme la boo xam ni rythme bu metti la waaye nag loolu lépp nag ci pas-pas rek lay tege ndax nit ki lu maanaam ndax himma mooy mooy doomu aadama al mar'u bi himmatihi yatiru nit ki pas-pasam ak yitteem ci lay amee lépp lu mu bëgg ba tax na moom AES tax na lekkatul naanatul daanaka vie de famille sax pratiquement amatu ko loolu nag day wane ni moom am na lu mu bëgg li mu bëgg nag ñi mu koy defal am nañ ko muy mag ñu baax ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon liggéey liggéey bi ba mu agsi fii mu agsi ay saay-saay jóge ci àll ba ñëw bëgg ko yàq yéen ngeen taxaw ni loolu du fi amee loolu. képp ku yor tarix képp koo xamante ne si ni tarix eh, maanaam eh, ci biir réew mi nga nekk ak tari boo mën a nekk war na laa amee war amee na leen njukkal amee na leen njukkal amee na leen ñaan amee na leen it eh, di leen bàyyi xel ak boole ko gi di leen jàppale ndax li ngeen def ñun ñoo ko waroon a def te mënuñu ko yéen ngeen ñëw fëddi ko laxasaayu dañu neen ci saaga AES danañ ko saaga. ba duggee ci nawet lu nekk lañ koy wax waaye loolu gisu leen loolu xoolu leen loolu yéen li ngeen xoolee da ngeen fexe ba nga xam ni maanaam frontière bi nga xam ni moom ngeen doxalee seen diggante ak saay-saay yooyu pour ñu mañ a franchir ñu bañ ko franchir pour jàmmarloo mag ñi yéen ngeen taxaw fi loolu euh, maanaam fay googu moom yàlla moo leen di fayal boppam di ko sant li wax lépp noonu la demee loolu lépp nag mu wax ci mbaaxam rek la ko teg moo tax mu wax ko ndax 1990 wax na dëgg ay côté timis la sëñ Maxtaar la woolu ma ñëw mu ne ma eh, Cheikh gi yàlla na ko yàlla yëram moo leen indi woon lu ñëwee mu ne ma sabaay nee naa leen teg ci lo sa loxo nga fexe ba ni nga mel ci alxuraan ñu mel ko ci alxuraan moom pour pour équilibre pour équilibre ak it euh, pour équilibre ak bëgg lépp tege ci yoon bi ñëwee moom dama ko jël joxe ko ci beneen jàngu keneen di ko jàngal ma jël Moustahine ak euh, Cheikh Matili di leen jàngal moom ak Bas mu ndaw ma jël leen jox leen keneen kooku di leen jàngal alxuraan loolu lépp it la ci sëñ Xaadim jublu mooy bëgg ñu mokkal alxuraan ndax alxuraan ku ne xam na ni mooy baasu lépp ci doom bu amee te toppatoo amut wala bu toppatoo amee te topp amut bu neexee kii def mu démissionné waaye yàlla def na lii ngay toppatoo yaa ko defar bokk ndey geeg baay gi baax na lool waaye loola du wax kese lu ñuy jëf la ndax euh, nit boo bokkee moom ndey ak baay li ne ci yow lu ëpp moo nekk ci moom waaye nag li ngay def ci moom ba suñu suñ la tuddee tudd ko loola mooy rakk ju ñu nawloo defar nga ko ba Sénégal tey umma islamique bi mën ko jëriñoo ndax taxawaay yi muy taxaw ci position léeg-léeg mu nekk ci position yu sensible waaye muy taxaw taxawaay yu mat sëkk yu am solo yoo xam ni yow yaa ko liggéey ci moom yaa ko def ci moom loola nga def ci moom nag produit boobu nga defar wax dëgg yàlla doy na tiitër doy na tiitër bu baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mission am ëppul woon loolu defar nit euh, euh, AIS nag munuñ laa fay ndax waxuma li ngay def bis bu set waxuma président bi nga leen defaral ba mu mën a jiite AIS te Euh, góor gi jaaji mbay li mu wax léegi sëñ maam Cheikh jiitiwuñu de ñun ñoo ko jiital déedéet ndax nit dana def ay pexe ba jiite nit waaye ñun ñoo ko jiital ndax bi ñuy wax AIS ñu daan président bi dañ koy def rotatif ñun ñëpp dañoo jël kenn ku ne sa ne ko waa ñun ñoo ay waaye delloowaat nañ la ko loola nag ci taxawaayam ak fullaam ak faydaam goo xam ni magam jii di kilifaam def na ko ci moom loola la feeñal Euh, colloque biñ fi def colloque international boo xam ni ba léegi macha allahu gisaguma ñu def lu kowe loolu sëriñ Bas mii moom lañ fekk méridien mu toog keroog macha allahu dama ra toog naa ba mu yàgg ma ne sëñ maam Cheikh ah sëñ Bachir sëñ bashir de wax dëgg yàlla ah méridien de xanaa moom moo ko moom di ko tooñ ndax taxawaayam ak yéwénam ndax ay taalibe dem fu mel ni méridien ay président di fa dal ngay dugg ko génn loolu yëpp mu taxawu ko jël ay million am def ci ba ñun soxlawuñu dem ci état wala ci kenn di ko tàllal loxo mooy